Aldouma Sow porte-parole du pôle de l'opposition chargé des élections du parti Pastef les Patriotes. Mhm. Alors vous en ce qui et qu'est-ce a fait de votre L'opposition est restée cohérente dans sa proposition initiale Euh, c'est-à-dire celle que nous avions faite euh, lorsque ce point a été euh, à l'ordre du jour de la commission politique du dialogue national. Donc nous avons proposé 5 millions, 10 en raison de 5 millions par type d'élection. Euh, cette proposition, il est important de le rappeler, entre en droite ligne avec les, la recommandation que les experts évaluateurs avait faite euh, sur la question de la caution. Pour rappel, les experts évaluateurs avaient dit que la caution doit être fixée à un montant raisonnable, de sorte à ce qu'elle ne remette pas en cause la liberté de candidature. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui ce qui est en jeu, c'est de préserver la liberté de candidature. Mais au-delà de cette liberté de candidature, puisqu'il s'agit d'élections locales, Il s'agit surtout de préserver le mouvement associatif local, sans lequel ce second pilier de la décentralisation, à savoir la participation, perd tout son sens. C'est vrai, le, ministère, le, le ministre de l'Intérieur était venu pour requérir en droit ce qu'on appelle un avis consultatif, c'est-à-dire un avis qui ne le lit pas. C'est pourquoi, après avoir fait notre recommandation, nous lui avons rappelé que qu'à y de plus près, il n'est en situation de pouvoir discrétionnaire parce que son état son esprit doit le mais également il doit être lié par l'histoire. Il que ce que ses collaborateurs, euh, ses collègues, ses précédents collègues ont fait en 1992 et qui nous a valu également moins que ce que des années 2000 a fait en, en, 2000, en, 2000, en 2002. C'est pourquoi nous pensons aujourd'hui que nous devons éviter à ce que le montant de la caution ne puisse pas servir ce à quoi la justice a servi en 2019, ce à quoi le parrainage a servi en 2019. Autrement dit, nous devons éviter à ce que le montant de la caution ne puisse pas être un prétexte, un alibi ou bien une occasion que le pouvoir en place va utiliser pour remettre en cause la liberté de candidature. Il faut le rappeler également qu'en démocratie, c'est la majorité qui fait loi. Et ceux qui ont assisté aux discussions de ce jour ont constaté que la majorité de ceux qui ont pris la parole ont abondé dans le sens de l'opposition, à savoir fixer la caution à un montant qui ne remet pas en cause la liberté de candidature que de dire euh, tout à l'heure. Donc, la balle est dans le camp du pouvoir. La balle est dans le camp du ministre de l'Intérieur. C'est à lui de préserver le climat de dialogue qui a prévalu dans ce pays de mai à décembre, euh, de mai 2019 à juillet 2000, 2022, en faisant quoi En prenant une décision qui va en, à, à l'endroit de ce que la majorité Et aujourd'hui, ce la majorité a est que à un montant ci est inférieur à, aux 10 millions, aux 20 millions que le pouvoir a, a proposé. waaw ñun opposition bi euh, li nga xam ne moom mës nekk suñu proposition ci mbir mi maanaam mbirum caution bi mooy yëf yi nañ ko euh, fixé ci juróomi million maanaam képp koo xam ne bëgg ngaa nekk maire boo amee juróomi million man di nga mën a bokk waaye aussi képp koo xam ne bëgg nga nekk président conseil départemental aussi boo amee juróomi million nga mën a bokk ñaar yooyu boo ko boolee muy 10 millions donc mën nañu wax ci gàttal ne ñun opposition bi 10 millions la ñu proposé waaye 10 millions yooyu ñu proposé boo leen seetloo dafa méngoog li nga xam ne moom la expert évaluateur yi proposé woon parce que expert évaluateur yi pour ci fàttali ay nit lañu yoo xam ne ñun ñëpp d'accord nañ d'accord nañ ci ñoom ñu doon ñoo xam ne faruñu fenn ba ñu càmbaree processus électoral u Sénégal ba pare ba ñu yegsee ci mbirum caution bi dañu ne caution bi nañ ko fixé ci ab montant boo xam ne du salfaañi li nga xam ne moom mooy liberté de candidature parce que boo leen xoolee tey problème bi démocratie Sénégal am depuis 2016 ba léegi te mu fësoon lool ci 2019 ginnaaw bi nga xamee ne ñaar fukki candidat ak juróomi opposition bi xañ nañ leen bokk ci élection présidentielle problème bi nga xam ne tey moom la suñu démocratie am mooy liberté de candidature waaye bu weesoo liberté de candidature war nañu fexe tamit ba lim bi nga xam ne wala montant bi nga xam ne fa la ñuy yemale caution bi mu nekk montant boo xam ne dina mën a permettre li nga xam ne mooy mouvement associatif local bi muy alliance muy muy association de développement yi nekk à la base muy GIE yi ak yu demee noonu képp koo xam ne bëgg ngaa bokk ci élection yi nga bokk ci waaye buñ koy yóbboo ci lim bi nga xam ne moom la nguur gi proposé muy ñeent fukki million gëm naa ne ñaar fukk les boo boolee ñaar yi da jox ñeent fukk buñ ko fa yóbboo man gëm naa ne li nga xam ne moom la ñuy wooyee mouvement associatif local daanaka daatul dee dootul am ci Sénégal te loolu bu amatul mooy décentralisation amatul parce que boo demee ci code général des collectivités territoriales lañ la fa wax mooy population bi moo ngi bokk ci yorinu gox bi jaare ko ci ay association donc war nañu fexe ba bu ñuy fixé caution bi tamit nga la ñu bàyyi xel ñooñu nga xam ne bëgg nañu bokk te seen i loxo jotul seen ñi fekkee débat bi tey ñi fekkee débat yi amul kenn kuy wedd li ni mel tey ñi bëri ñi nga xam ne jël nañ fi kàddu ginnaaw ñi nga xam ne ñooy waa nguur li ñu proposé mooy yëf ñu yemale ko ci li nga xam ne mooy juróomi million ñi nga xam ne ñun opposition bi moom la ñu proposé